ni euh, daanaka euh, dañu ko bind jëmale ko ci euh, président Macky Sall loolu moo tax l'observateur ci français mu ngi bind ci titre bi ni Abdoul mbay flaire une sale affaire. waaw ci mbiram rek lu soxal contrat yi jëm ci gaz beeg pétrole beeg gi nemmeeku fii ci Sénégal ba tax moom mi fi nekkoon premier ministre Abdoul Mbaye bindab lettre jagleel ko Macky Sall rek ngir sàkku ci moom muy indi leeral jëm ci loolu moom nag nee na rek faw ñu daal di publier contrat yi nga xamante ni mooy contrat d'exploitation. ak production bu pétrole ak gaz fii ci Sénégal wante nag euh, kii di ministre bi ñu dénk wàllu mine ak euh, industrie di Aly Ngouille Ndiaye tontu na ko nee na Abdoul Mbaye bu dee am na lu mu xam nako ko leeral sénégalais yi moom moo gën mu nekk rek di waxtu ci mbir yooyu. loolee mu ngi jëm ci gaz beeg euh, pétrole bi ba ci euh, enquête moom la xëyee tey ci xëtu yéenekaay bi ñoo ngi ci gis euh, nataalu ki fi nekkoon premier ministre bu Sénégal Abdoul Mbaye ak président bu Sénégal Macky Sall loolu moo tax ci xëtu yéenekaay bi ñoo ngi ci liir ci français ni Abdoul Mbaye interpelle Macky. waaw kon daal moom mi ngi sàkku ay leeral ci Macky Sall moom Abdoul Mbaye moom ginaaw lettre bi mu koy jagleel. ba tax na yenn kaay bi daal di si del si mbir yu bëri nag soxal na ay Petrotim ak yeneen compagnie yoo xamante ni daal bitim réew la nekk ñëw fii nag ñu jox leen rek ay permis d'exploitation nee na daal faw ñu leeral mbir yi ndax daf cee xaw a am xelam lu mu ci tey ci mbiram njuñ njaay yu nu mel yenn kaay bi del si également ci ayda Diong neen daal ñàkk na ay bien maanaam lim aloon ci alal daal cour suprême nangu na ko. ñu euh, wax ci leneen loo xamee ni lëmbe na daanaka tey jii euh, yéen kaay yëpp muy euh, coowal Aïda Ndiongue l'observateur ñëw na ci ñu ngi koy gis ci xët bi ni cour suprême verdict l'observateur ni Aïda Ndiongue perd tout boo liiree itam xëtu yéen kaay bi di populaire def ci ñëwaat ni Aïda Ndiongue dépouillé ak yeneen i ku ci nekk da xëy tey ci verdict boobu la nga xamee ni mu ngi jëm ci condamnation bu jëm ci ay produits phytosanitaires yu la daal di ci ñëwaat neen daal kon soxna Aïda Ndiong mi nga xamante daal yaakaaram bu mujj moo doon cour suprême cour suprême googu di kaay bi gën a koy fii Sénégal teg na koy daan ngir mu daal di fay rek lu toll ci ñaari million lépp lu amoon ci alal day yoon da koy daal di nangu ñu yóbbu ko ca trésor public ba ay avocat am sax danañ jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi fii ci ngoon kon mu mel ni kon yéenekaay yëpp jël si nañ comme ni nga ko waxee ci mbir moomu. dossier boobu la sax yéenekaay bi di laas daf xëyaat tey ma nga ñuy xamal ni la cour suprême ruine Aïda Ndiong kon daal dafa mel ni lim li soxna si yoroon ci alal yëpp daal moom yéenekaay bi daal dinañu xamal ne kon daal di dinañ koy nangu ba tax Cour suprême moom moo jël boobee dogal yéenekaay bi nee na nag moom Aïda Ndiong daal condamné nañ ko teg ko ay daan ci wàllu woowu ba tax na kon nee na ñi ay euh, ñi koy layool ci wàllu yoon di leen jàkkaarloog tas ko taxaw. coow loolu nag ku ne ak li nga ci titré euh, quotidien mu ngi ñu xamal ni Aïda chute à la dernière et waa dafa mel ni daal bu doon xam naa rek da ko boole ak li xew ci Jeux olympiques yi ba tax mooy yaakaar bu mujjoon daal ci mbiram uh, yoon moom ay da njong nag uh, foofu la daal di daanoo ndax Cour suprême moom ci wàllu àtte moom mooy kuréel gi gën a kooye ba tax maître si see moom nekk avocat am nee na lii kenn mësu koo gis ci histoire du Sénégal dogal bi Cour suprême jël. ngir bañ coow ci euh, wàllu suuf jëm ci boori corniche bi euh, jàpp euh, port ba Mamel am nay matuwaay yoo xam ne ni yéenekaay bii di libération mu ngi ñuy xamal ni président Macky Sall jël na ko. jël na ci ay matukaay nag yu bees boo xam décret bi sax moom mi yéenekaay bi daal dina koy publier nee na daal képp ku bëgg a tabaxati fii ci corniche bi faaw rek nga am ci ndigalu premier ministre. soo ko deful dañu jàpp ni la nga tabax moom day neen coow yi am ci biir parti politique bi di APR yenekaay kaay bii di direct info euh, da cee xëy tey ba tuddee ko guerre froide guerre froide la ko tuddee nag euh, daal di publier rek foto yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo cay jaamaarloo diggante ñi ànd ak Diouf Sarr ñoom nag ñooy tuumaal Yaxam mbay ak Seydou Guèye ne lu jiit njaag ñoom ñooy njaag ndax coow li ak complot bi jëm seen leader ñoom ñoo ko waral muy ñaari responsable APR yooyu kii nekk Médina kenn ki nekk Dakar Plateau ñuy xëccoo Dakar ñoom waa APR yooyu. le président absent les souridances loolee day ci leneen lañ ko daan dégg évidence def cee xëy tey mu ngi jëm ci vacances su euh, gouvernement bi. vacances gouvernement bi ndax njiitu réew mi jamono ji ma nga ca fële ca Popenguine ci résidence am ba di fa noppalu ndax doon nekk ci bër ba tax na yéen bi ne daal boo demee ci ministère rek yu ni mel daanaka mbuumbaay fa am ñu bari ba tëj nañ seeni i bureau dem looloo tax nag mu jàpp ne li ko waral mooy xëy na li fi njiitu réew mi nekkul fii ci Ndakaaru moo moom moo tax mu ngoog loolu yéen kaay yi la woon ak seen i xët bu ca kanamee ñu xóotal ko ak Mamadou Mouhamed Ndiaye merci Chérif. bëggoon naa bëggoon naa tooñ Oustaz Pape Hann. ayca boo xoolee yéen kaay boobu enquête. enquête waaw. am na benn lu xaw a doy waar lu fa nekk. benn benn imam bu gagné PMI xaw ma. ah loolu jar loolu de gisuma ko woon <laughs> su ma ko gisoon xam nga ñu laaj ci man mii nga xamante ne lu ne sama loxo ngi ci enquête jërëjëf Chérif ñëw yàlla réer mu ngi noonu ci ci Thierno dafa ma wax nga dëgg de <laughs> ah mu ngi ci euh, euh, titre bi ci kaw l'imam décroche un jackpot de 17 millions <laughs> PMU la doon joué yow léegi loolu loolu loolu lu ci yoonu oustaz. xanaa du ci réew laaj lu ci lu mu ci ban. gis Sénégal loolu du Sénégal. du Sénégal ah on va vérifier. ba xam Sénégal la. ah oustaz boo demee Sénégal ah. kooku moom. <laughs> ah fu mu mën a doon imaam imaam la rek. gagné na 17 millions de. di la kooku.